quel plaisir de vous retrouver sur les différentes plateformes digitales yi fi nekk yëpp ce soir on a un entretien spécial mais avant entretien spécial bi dañuy wax que ni Pape Diouf moom moo fi am euh, balance boo xam ñu ngi koy waat soirée bi ñuy waaj a def demain incha allah le rendez nag wala ce qui fait le buzz sur la toile moom mooy Ahmed Cheikh Ahmed Cissé moom la ñu parrainé bés bi il s'est permis jënd plus de 1 million 500 su ma juumul ci ay billets pour ñëw bégal ay soppeem mais aussi pour ñëw soutenir l' artiste Pape Diouf Cheikh Ahmed Cissé kontaan ci yow bu baax ci le fait. nga invité presse bi yëpp wax ji nag li ci rafet moom mooy presse bi ñëw leen je vais en charge loolu tax taxul presse bi ñëw waaye li ci am solo daal moom mooy yëg-yëg maa ngi nga nuyu ñu maa ngi lay fay di am kontante teew fi bi ma jógee prison dafa am message bu am solo bu ma waxoon ma ne dañuy wax ne site internet yi ñoo ko dugal ñoo ko dugal ma ne leen non man ak yéen ñoo far man yéen laa su fekkee ne teew ci yéen joxe kàddu pour askan wi moo yóbbu kaso. kon du ma fa jóg te ku xam press da nga koy fonk parce que dafa am importance bu mu am yàlla ci boppam sax am na presse. Hmm? yàlla dafa am presse Jibril moo moo jiite presse bi moo daan indi mission bi. Hmm. Eh, risala bi xibaar yi donc yéen yéenay jox nit ñi xibaar donc ku leen xamul rek moo leen di moo leen di jox cër benn ñaareel ba da nga su am tuuti xaalis rek ubbi site di lekk xaalis mais yéen ñiy sonn di dugg ci terrain bi di wax ak ñun. Euh, du ngeen ci am loolu te bu fët amee yéen la ñuy saagandey donc moo tax man xam bu ma xam média moo tax ma bëgg leen donc suba dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ni ma amee sumay gan mooy xale yu jigéen di noonu ngeen doonee suma gan lekk suur naan man di baal mu jeex quoi waaw maag presse moom euh, ñoo bokk di la fay nuyoo di nuyu ñëpp di nuyu waa référence mooy site bu mag bi xew jamono bi. ok boo tuddee référence di nga tudd univers info tudd Africa Press 24 tudd tudd tudd Tako TV tudd. live mais univers moom univers moom tudd référence actu la laay nga yi nga gis nii ma tey ñëpp ñii ñëpp samay DG lañ. dëgg am na fu ma ne ñu may fay a wax mooy univers moom ki ko moom man kooku laa moom univers maa ko moom man mii toog ak yow. maa moom ki ko moom. waaw donc di nuyu ñëpp di am kontante teew fii biir cosaan di waajal suba ndaxte bis bu rëy lay doon suba incha allah lu nit musul gis dina fi xew d'accord ban la mooy sa diggante ak Pape Diouf parce que euh, c'est une première ñu gis la yow nga engagé wu jël lu toll ay millions jënd ko ay billets artistes nekk Sénégal bëri nañ yaanaa am gogo mais Pape Diouf lañ gis nga nga nga tippoo ak ak moom lan la lim la woy la wala ngeen am relation or bi su ma diggante ak Pape Diouf mbëggeel la bi bi bi ñuy def cassette mhm. ci laa doon jënd Pape Diouf mhm. di màgg loolu am na relation mbëggeel bu neex boo xam ne ci kaas-kaas bi la xewee woon waaw xale bu jigéen bi dafa bëgg kaas-kaas ma dem jënd kaset may ko ko mu neex ko ñu xaritoo ba nobant <laughs> donc loolu daf may marqué toujours quoi beneen bi dafa wëy yaay wëy bi neexoon suma yaay mbëggeel la daal mbëggeel waaye man ma ñëw Pape Diouf fecc taxut maa ñëw hmm. man su ma bëggee fecc mën naa fecc suma kër. parce naan Ameth moom war na baale. waaw wëy bu neex. taxul ma ñëw parce am naa géwélu juddu yu ma gën a xam Pape Diouf li tax ma ñëw mooy man dama ko bëgg te moom daf ma bëgg daf ma yëg man xaw ma nu nit mel ak lu mu am fi nga ma def loolu laa xam moo tax danga gis mu ànd ak ko ñàkk fayda nga doya dal ko fekk fi ma teg moo ma gënal donc su ma digganteeg Pape mbëggee la moo waral lii lii commencement la rek mais xëj na bés dina ñëw ma fay génération consciente yëpp kase teg leen stade wala arena kenn du fay. Ah waaw lekk yi sax kenn du ko fay. loolu de. loolu loolu foog naa ne dinaa ko mun di def ñaari yoon ci at bi Gambie ak Sénégal lu ma bëgg la pour Pape Diouf. Mhm. fekk mu ngi woy maa ngi fi. ci li ma bëgg yàlla nag mooy dogal. Mhm. waaw yàlla mën naa def sama ñàkk bay ñaani yàlla mën naa def suba ñu taxale ko mais li ma bëgg man. Mhm. mooy di jox Pape Diouf askan wi te gën koo booleeg askan wi. nit nag sañ naa wax li mu bëgg. d'accord une date que tout le monde se prépare moom mooy Pape Diouf dafay dem euh, Diamniadio ci stade bu mag ba. en tant que sëriñam en tant que xaritam ce que am nga loo ko ciy conseil loolu dafa sori subaa xew gis nga bu subaa. Hmm. mooy wane ndax loolu mën na nekk. xam nga damay ànd ak soixante quinze jonga ma presse bi topp ma ñoom suma xarit leen dama leen bëgg. motaar yeeg wii wii drone yi di naaw soixante quinze ans te daf koy ëpp. Eh. parce que moom moom mii jongama yi ànd ak moom dafa bari jéeli jongama yi ànd ak moom am na ñu jógee Europe du caaxaan de bi man nekkuma ci nit ñu nekk. maa ngi waat ci yàlla nit jugee na Brésil nit jugee na France juste pour lii te xawma ma leen ñu ne ndax den ma bëgg xamuñ nuñ may teralee ñu gis na bés bi ñor na ma ñu ñëw am ñu jugee Gambie ma dalal leen loolu am na donc chaque jour charge lay doon du fere bi mais acte bi xoolal lii rek opérés bi rek ñu ñëw dama am seen fay dafa sedd xaw ma fan ngeen jugee am na ñoo xam ne tey laa leen door a gis mhm. mais lii mooy li rëy ci àddina mais man awma alal mais dama tabe awma xaalis mais xam naa teraanga waaw donc euh, suba la ñuy xam ndax arena mën na nekk beneen bi arena la 15 anniversaire u Pape Diouf la xaw ma arena ñaata nit lay jël mais man 1000 lay jël. 1000 billets ngay jëndee waaw incha allah. avant tout. Mhm. Euh, nga wax ñu tamit ci euh, li nga xam ni moom moo di ñëwaat bi nga ñëwaat ci toile bi defaat sa ay live produits yi ngay jaay ñu gis ni gindiwaat nga ci ay yeneen produits di ko jaay. mu bëri nag ñu ngi naan produit yu baaxut mais yow yaa ngi jaay waaw maam jaay na ne jaay mais yow moom yaa ngi jaay li ngay jaay Ahmed est-ce que c'est certifié ak c'est authentique est-ce que baax na. bien sûr xam nga tey euh, man déggaguma ko ne baaxul damay dégg ne na oddu kàddu yi ñi naan amu ci sutura mais baaxul moom déggaguma ko parce que euh, am na comme ñu ma doon tendance yenn sëriñ dem ci ñoom Ndoye Bane mais keroog la affaire bi sa gën a def exploit donc xamuñ ñu may jaar. ñu bëri dañuy jël nekk nekk détail ma di leen jox grossiste ñuy changé tur ak yooyu mhm. ñii naan bëgg a am alal wala nga am yeneen entreprise wala yeneen liggéey parce a jënd table rek jënd naa cristal ba mu fees pour démb gis boîte xam nga waaw Villa Cristal. Villa Cristal Villa waaw. ba mu jël yëpp VIP yëpp ñun ñëpp dañu dem dugg gratuit. mais am na da nga am benn liggéey non garabu koy dafa dox ah, yow. am na non mais dafa dox am nga problème bi mooy. imagineel Amérique ñoo ñu gën air ñoo ñu gën dëkkuwaay everything ñu ngi jaay. ndax xaaral maa ngi ñëw dama ne Amérique bi ñu gën dëkkuwaay gouvernement lépp Amérique moo ñu ko gën dañuy jaay 500 millions de dollars. Saudi Arabie Viagra moo ko gën a dox donc adduna yëpp la du Sénégal man Sénégal bi ma nekk di jaay li may jaay di tuuti par rapport ak ñeneen man visé naa yóbbu ko eBay yóbbu ko Amazon di jaay cinquante mil pièces chaque jour. minimum un million cinq cent. chaque jour yàlla xam na ko gàllu xam na ko. bu zéro rek la yem donc minimum un million cinq cent dinañ ko def ci journée bi minimum suñ jaayee un million doxul. man maa loolu am na kuy am cent millions tabe dafa am gis nga nit da ngay tabe nit ñi jiiñ la amul mais am na ñuy gaare oto cent millions mënuñoo ñoo def ci nit dix mille man damay wuti maye gis nga nga am ba pare jotoon pour tabe loolu sédd nit ñi seen wërsëg. mais man mun naa wuti 500000 juste pour maye du ma ko wuti pour denc dama koy wuti pour maye suma compte banque procédure la pour su ma waree fayee ko xaalisu bari mais suma compte banque mooy jox nit ñi te yàlla tax yàlla jox donc li may def ci Pape Diouf tey la benn yoon mais am naa trois xale yu may dundal ci ànd laa bëri man damay jaay ba mu woon laaj ko galo moom xam na ma wala DJ Iyu fréquente leen ma dëgg-dëgg. damay jaay ba ngoon may jël liste ñan laa war a def mu jeex quoi mais lu ko jar donc ak am xaalis du benn mais loolu maa ngi ko jëlee ci baay Niass waa ji daf ko ne kaay ñu ubbi compte banque nga am intérêt mu ne ko am naa compte banque bu ko mooy loo am jox ko yàlla loo ñàkk jox ko yàlla moo tax fu mu nar méttee nga war maa reetaan rek ci kaw laa jëma loolu mooy suma secret secret du dara lu mooy tabeeg joxe ko joxe bi nag am na ci loo xam ne yàlla tax ma di ko def am loo xam ne su ma bopp tax lii may def ci paa bi pour su ma bopp tax maa ne nekk su ma xool su ma bopp. mais am nga ci ah, nekk ci algorithme bi nekk ci toile bi moom. non xew yi xew dafa am. 1 million 500 moom jënd ko ci ay table. non fan yii moom wax dëgg yàlla yaa mais non mais. Pape Diouf may na la buzz ni nga demee yooyu tamit ñàkk ko ci dara. non mais wa war na mag ak rakk bu ñu àndi rakk war na mag war na mën a jox rakk buzz. Pape Diop jox ma ba devoir am la moom mais jamono bii ku ma ñëw sa soirée ñu fees parce que ci man la dama amoon tuuti bës ma dem kaso mu gën a yokk est ce que du ma delluwaat. suba laay signé ji xam nga lu ci gën a doy waar. suba laay signé mën naa dem rek juge bi dama toogal. suba wóorul. d' accord. ñu gis nga nga nekk mu mel oto man daal xaw ma noonu noonu mais gis naa na romb débiteur yomb na lakkaloo jëfe lakkaloo wuñ ngeen doon romb rek ah gis naa la nga dugg man moo naan yaa ngi yaa ngi yaa ngi fay en fait oto laa bëggoon a jëndi oustaz Mouhamed Mbaye xam ne man dama xër mu yóbbu ma ci oto huit cent dix millions bi gën a bi gën a yomb cinquante quatre millions léegi jënd dama am njëgam man oto 2 millions laa bëggoon bu xottu xarit boo xam ne fu ma daw ngeen puus ma. moo jënd nga ko de wala jënd ko. non moom xamoo ci dara. moom jënd <laughs> noonu la bi may ñëw ah, dara gisoo suma tànk yi nu mu fëndee jël leen tànk yi. mais sa copain. Euh, muy euh, Californie. ngi ñëw moom tamit nee soo yéexee mu ñëw. Macky ko may càkk ma cent xaw ma deux cent millions loolu tamit bi ko gisee. non Macky Sall amalul njëriñ Californie. may ko oto boobu amalu ko benn njëriñ. kon loolu ay numéro la. jëriñu ko dara. Macky Sall amalul Kaliphone njëriñ li ko Kaliphone sonale bu ko sonale Kali passé waaye ndokk yàlla Kali faale wu ko xaaru ko defar na ndégam te Macky fekkewu ko jabaram fekkewu ko gouvernement fekkewu ko hmm. xarit baa ngi ñii di ñëw léegi mu ñëw la wax pour so xawaare bi nii. xanaa ne am na 75 jigéen ñi moom père du ko bañ sama père du ko bañ bu mu gisee ah, a lu su a la doon dundee prison. foofu foofu foofu da bi mujj gi sama biir daf ko miin sax damay bëgg a dem douche taxaw nit ñëw rek. waaw biir bi nante ni kur delluwaat ma ne ko mooy jàmm ma toog. mais gars yi dem si néew. Samba jërëjëf. waay.